donc euh, nuyu nañ la Bachir. mais saay maa lay fay. voilà tey ñu gis ne ñëwoon nga ci fan bi ñoo seetaanoo match bi nga ñëw def sa caaya bu baax waaw ak say technique xam nga ñoonu nga dundee tey match bi. buñ la doon laaj damay waxtaan waxal waaw. buñ la doon laaj tey say impression donc euh, ci match bi prestation bi. prestation tey bi équipe bi def. donc euh, lan nga ciy wax. mais kontaan rek xam nga équipe moom bu gagné rek contentement rek nga ciy am mais lu ñu leen gën a concentré wu mënoo jouer équipe à neuf après yow ko mënoo ko dóor benn score mais bon dara puisque ñu ngi ci huitième de finale yi de finale yaa ngi ñëw na sénégalais yi gën a nekk seen ginnaaw gën leen jàppale gën leen ñaanal mais sëriñu ndaw yi nañu noppi quoi en fait ay ñoom Koukandé ay ñoom yeneen sëriñ yi ay ñoom Salbe ay gars yi noonu il faut que kii la ferme quoi en fait nañ tëj seen gat yi ay ñoom Pawlish Mbaye war a wax ay ñoom ay ñoom Ousseyn ay ñoom Xaasim ñoo ñoo war wax ñooñu bu ñu waxee dañuy gagné mais ay ñoom Koukandé xoolal Kounkandé kanamam bi comme pizza bu yàqu mais loolay lan mais nañ noppi Sénégal la ngi gagné ñu ngi bëggee sama copain Kaana maa ngi koy bëggee saagal ma Kounkandé. yee non Kounkandé dafa yeb nit ñi quoi parce que mën nañ ko nangu benn yoon mu ne day xat géej gi ah ko mu ñaar ne da koy xaraat bu ko naree xar barki Maam Bamba laa la waatal Kaana ngi nii MC Kaana maay borom ikaat gars yi fii ñëpp ma xam man xam man anta naa xaj géej gi nii ngay gis nii gars bu ñëwee ma xar ko Kounkandé day sóob

yow bro waaw ñu ngi si compétition bu bees waaw gagné bu bees éliminatoire direct la waaw kan bi ñaari compétition la xaw nañ échoué benn bi donc waaw nañ yëngal bi mu jeex sinon moom ñu tuxu Gambia people mu jeex. taj nga fi jaajëf.